Dalena ak jàmm ci Sen Sport 221 pour ki Demba Ba l'international sénégalais bi moom mu ngi amal ab doublé tey ji ci ngoon ci match bi nga xamante xewoon na diggante Istanbul Basaksehir ak Tuzlaspor ci dellusiwaat gannaaw bi mu amee blessure ñu dal di dóor 3 buts ci li nga xamante mooy quart de finale yi ki nga xamante mooy Ousseynou Ba moom itam bitar la tey ci match bi nga xamante xewoon na diggante Olympiakos ak PAOK Salonique 15e journée la woon foofu la ca Grèce kii nag di Ousseynou Ba daal di sauver bii di Olympiakos gannaaw bi nga xamante ne leen jiitu woon benn bal ci dara dañoo match nil bi partout benn biiw ki nga fële ca France moom tey jii li ñu doon joué mooy super coupe wala li ñuy tuddee trophée des champions mu doxoon diggante Paris Saint-Germain ak ñi nga xamante ñooy Olympique de Marseille Pape Gueye ak Boubacar Kamara ñoom lay woon ci côté Marseille bu dee ci côté Paris Saint-Germain Abdoulaye Diallo wala Abdou Diallo moom titulaire la woon ci match boobule Paris Saint-Germain nag moo dal di dóor ñi nga xamante ñooy Olympique de Marseille ñaari bal ci benn dal nga xamante ne mooy trophée des ci Espagne nag moom li nu mel moo fa xew ñoom itam ñu ngi joué li nga xamante mooy super coupe d' tey jii doon joué première demi finale bi doxoon diggante Real Sociedad ak FC Barcelone Barcelone nag sans Messi ñu dal di ak ñi nga xamante ñooy Real Sociedad minutes kenn mënta gagné sa morom ñu dal mujjee ci li nga xamante mooy tiro bi waaye nag Barcelone dal jàll ci kanam Real Sociedad qualifié ci li nga xamante mooy finale a dox diggante Athletic classico mën na amaat ci mois de janvier bi bu fekkante Real Madrid jàll na ci kanamu ñii di Bilbao. transfert ki nga xamante mooy Moussa Dembélé jógee foofu la ci Olympique Lyon jamono yi yëpp kayit xibaar doon laam-laamee ne dina dem foofu la ci Atlético de Madrid jamono yi na Moussa Dembélé dina des foofu la ci Atlético de Madrid juróom-benn weer muy prêt bi nga xamante ne Olympique Lyon ñoo ko dalal di abal ñii di Atlético de